mbokk yi sixième combat de la soirée dox ci diggante Bada 2 ak Boy Plateau arbitre bi sifflé ndeysaan ci diggante ki nga xamante ni mooy Bada 2 ak Boy Plateau Bada 2 moo ngemboo ngemb lu waaye ki nga xamante ni mooy Boy Plateau moo yor ngemb lu vert li mbokk yi ndeysaan mbokk baa ngi noonu ndeysaan ñoom ñaar ñi ngi jàkkaarloo jàppanteeguñ ñi ngi sànni ñi ñoom ñaar ñi ngi xeex ñoom ñaar ñi ngi xeex ñi ngi xeex attention KO oh oh attention nañ déglu arbitre bi Boy Plateau Boy Plateau moo daan Bada 2 Boy Plateau daan na Bada 2 jël bu amul benn werante waa xale baa ngi noonu ndeysaan gis nga ko oh xale bi oh xale bi Boy Plateau Boy moo daan Bader 2 tey gis naa ko la fi nga teg sa bët bu naa soxla yaa wax lii waaw mais waaw waaw waaw non daane dañ ma xaw a tuuti waaw waaw sama yaay jàmbaar la dafa sol sama kër baay may bëre tey mu ne ma jàmbaar oh, jàmbaar Plateau de jàmbaar nga ku sa di jàmbaar doo daw xare sama yaay moom ko wax Diou roi des arènes su ñëwee si man mais loo wax si booy bi nga soxla waaw boy amare garaawul quoi koy laaj koy laaj mais géew lamb bu Siteu dafa war a taxaw bu Siteu mais lamb la nee na ma dóor laa loolaa dafa ma daan mu ne man joor laa ma ne ko ku jégeegul ci dex pour reetaan pour lab ci dex man li mukuli ha wa tukuli he no tengo tembo para hablar no hablar mucho porque yo voy a ganarte ye yo quiero ayudar a mi madre mo ba plato way man dama laa la wax man dama ne no tengo tiempo para hablar ah yo pidan perana todos yo estoy nacido para volver en campeón hay que rogar por mi contra la victoria micro. fii ku mu doo ragal tey damay génn sunu kër di dem bëre mu ne ma Fala jàmbaar oh jàmbaar Fala doo de jàmbaar ga ku di jàmbaar doo doo waaw moom sama yaay sama xare waaw bilaay barke Serigne Touba waaw bëre bi yàlla ma suturaal rek parce que ñun bëre dañ ko jàng parce que lamb 8000 licenciés maa si gën a tuuti man fu may ku may entraîner rek yaa ma yëpp doole ñii jaaxaluñ ma nañ ma xeeb ma duma leen ñëpp bu si da nag su bëre wala man bàyyi naa lamb bi sa nga tay loolu lay sama dernier bu si da ak man bàyyi na maa xaar nag heure bu mo paree baax na buñ ma fay dara